alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi ak fu ñu mën di dégloo ci kaw suuf ci biir Sénégal ci biir Afrique ci Europe ci Asie ci Amérique ci Australie ñu ñëwaat ak yéen seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahu llahu wa raahu min kulli suin wa makruh ñu ciy leeral fm bi ci louga cent quatre point six di ci ànd ak salaam fm quatre vingt onze point neuf bi ci mbàkke di ci ànd rajo keppaar quatre vingt dix neuf point sept bi ci kawlax di ci ànd ak leeral fm ba ca Ziguinchor quatre vingt quatorze point neuf di ci ànd ak xamsa sa diine ak dégg diine ak yeneen réseaux sociaux yi waaye di ci ànd ak tamit ñi nga xam ne ñi ngi ci group bu whatsapp bu euh, fatawa docteur Mouhamed Ahmed Lo ak yeneen groupe yi yëpp nga xam ni ay téeméeri téeméeri groupe la yu muy dugg par semaine kon dañuy jox Cheikhana mu ibbee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 bismillah jazakumullahu xayran cheikhana kii joxe na turam tudd diw di wootee mbuur nee na yeesa bu vacances jotee day ñëw vacances ci yaayam mbuur mais nee na borom këru yaayam bi ak njabarkat la nee ndax kon pour euh, muccël pas-pasam dina dagan muy nekk foofu ci biir kër googu xam kër njabar la di fa vacances njabar day amu ci gu àggul ci bàkkaar bu mag te li ci ëppit day àgg ci kéefër kon nag euh, lu mat a wattandiku la képp ku koy def yaa ngi ci loo xam ne si luy sànq sa àllaaxira la xaw ma nag ndax da nga ci am àdduna wala doo ko ci amee su fekkee ne wér na li muy def ak njabar la bu wér a wér wér lañu koy laa biire mooy na fexe ba seet ñu mën a wax ak waajoojee ngir mu génn ci loolee mu nekk su loola mënta nekk waajuram woowee fa nekk nga xam ne nekkul ci lu mu xam moom ci boppam ci muy sëyal nekkul ci lu xamees su ko fa mënta jëlee wala mu mën ko convaincre ba waajuram bu mën faa jóge yëpp lii su ko tere nag muy ñëw ci yaayam ak a dem ndax rafetal jëme ci ay waajur sunu borom tabaraka wa taala ci boppam moo ko santaane moom mi santaane julli santaane woor santaane yeneen waaye nag na wattandiku lori kookee lépp loo xam ne jàpp na ne su ko defee lor mën naa jóge ca moom dikk ci moom loolu na ko daw jubluwuma lori waaj a jabar ko de waaye lori di jaxasoog moom ak di toog ak moom ak ba seen diggante àgg foo xam ne mën nañoo am ci ak juboo loo xam ne dana tax di ko convaincre ba mu woyofal njabar loolee dañu ragal ci moom na ko wattandiku kem kàttanam wallahu taala alam baarakallahu fiikum cheikhana jazakum allahu xayran kii nee na moom yàlla da ko euh, bëggloo sport xam naa football la ci jublu ndax nee na saa yu dem di sport yi tamit day sol kilo Eh, yeesa yeesa tamit mu sol mu sol kii bu gudd mais ñeneen ñi muy nekkal ñëpp tamit eh, ay kilo la ñuy sol mu ni sharia lan la leen jàngal ñu mën a def seen sport eh, te duñ ci am benn daanu borom bi subhanahu wa taala alhamdulilah sharia li muy jàngal nit ki ba mu mën jëfandikoo ci sportam te du ak diineem benn règle générale rek la boo xam ne ku sàmmonteeg moom man ngaa def sa sport te sa diine du ca lool moo di sport bi bum tax nga def lu ñuy tere waaye bum tax nga nga bàyyi luñ la sant diine ay ndigal la ak i tere boo fexee bay def sa sport te du tax nga def luñ lay tere du tax nga bàyyi luñ la digal kon sa sport yow mën naa continuer waaye ñaar yooyu nag lu ci damm rek say boobooba sport nga daal ko teg ci suuf dem seeti beneen bi maanaa yaa nga woon ca terrain ba di football waxtu julli jot na ndax football di dana la tee julli ca waxtu wa su fekkee ma nga koy tee ma nga lay tee julli ca waxtu wa xamal ne ma nga lay taa ma ngay dox sa diggante ak luñ la digal yaa ngi ca football ba jëm ca ñu ne la da sol loo xam ne da ngay rafle ba say pooj nekk ci biti ndax football ba jaral na la loola su la ko jaralee ma ngay dox ma ngay nga la jëmali ci loo xam ne luñ lay tere la kon saa bu doxee sa diggante ak luñ la digal wala mu ñoddi la jëmale ci luñ tere jëmale ci luñ tere su boobaa say boo nga taxaw te xam ne sport ba charia daal dina koy tàmbali bañ amul nag yeneen yu tax charia di ko bañ budul loolu allahu taala alam waffaqakum allahu wa baraka allahu fikum laaj bi daal ñëw na fi lu bari moom it euh, ci semaine bi xawma nag lu ko waral nee na soxnaam sim bëgg a takk um, waa mu ni dafa am koo xam ni soxnaam sim bëgg a takk bàyyam bi ko jur moom ko góor gi dafa jotoon a njaaloog soxna soosa muy laaj ci sharia ndax dagan na mu takk ko wala déet alhamdulilah baay bëgg a takk jigéen yëg ne doomam mas naa njaaloog moom wala doom bëgg a takk jigéen yëg ne baayam mas naa njaaloog moom masala la moo xam ne boroom xam-xam yi yooyoo nañ ci bu yàgg ñenn ñeneen lii mën naa nekk ñu ci def ne munta nekk al imaam Malik ak al imaam Shafii rahimahumullah seenu ngir dañoo wax ne loola mën naa nekk ca risalatu bne abi zeydin al qayrawaani ma ngay wax ne wala yaxrumu bizina xalaalun li nga xam ne dafa daganoon day njaaloo du ñëw mukk di ko xaraamal ndax njaaloo amul orma bay araamal la daganoon njaaloo munu ko xaram loolee la ngërum Maalik wax waaye Abu Xanifa rahimahullah ak ngërëm dañu ne loola munta nekk ñoom it ñu jëfandikoo benn qaayida muy ab régal boo xam ne régalu sharia la boo xam dañuy wax ne yasbutu bi zina maa yasbutu bi nikaax lépp loo xam ne day sax ci njaaloo dana sax ci sëy maanaam mooy safaanub reegal ba la jëfandikoo ca borom risaala ginnaaw sax sax na ne ki takk jabar ba sëy moom baayam mënatu koo takk doomam mënatu koo takk kon itam ñu ne maa yasbutu bid nikaaxi yasbutu bis zina ñu ne kon kat moom it benn la noona la mbir ma demee bu dee nag euh, kiy xool masala mi day gis ne ñi jëkk wax ñu al imam malik al imam shafii li ñu wax noonu bu dee da xool xoolu sharia boo xam ne rek lu gën a jege dalil ngay wax dangay wax ne seen wax jooju day wax ju dëgër la waaye nag booy xool ci wàllu fatwa ak lu jaadu ak lu jaaduwut da nga yëg ne yaaduwut maanaam def moo gën a jege ruuxul islaam loolu ñu tuddee ixtiyaar bañ ngee def tere gi wala nga ne xaraamal gi moo gën a jege ruuxuk lislaam ci boppam ndax kat ki nga xam ne takk na jabar indi ko joo xam ne am na kum jaaroon ak baayam wala am na kum jaaroon ak doomam ba noppi mu bokk dëkk ak baayam boobu ci biir kër gi ñu bokk nekk fa su amee dara cam xel xelam warut a dal ndax baay bi daan jóg di dem di ko fekki wala ndaw sax di ko fekki su fekkee ne bokk nañ nekk ci génn kër goo xam ne nag dañ ne léegi jabari doomam a nga xam ne fu ko neex lay dugg bu ko neexee wéet ak moom bu ko neexee mu bañ a soli suuf sax ci kanamam maanaam feeñal boppam ak yu nu roog yooya su fekkee ne eh, am nam xel dana xam ne la xewoon bu jëkk fii mu nekk ñu gën naa jàppandi kenn sam xel du dal ne loolee ñu defoon mën nañoo continuer di ko defaat loolu benn la beneen bi ci desit mooy ki xam ne mu ngi nii yor jigéen joo xam ne jabaram la tam wóor ko ne am na fu mu jaaroon ak baayam kooku de saabu am xelam demee ci loolu rek su dee nit ku mucc dana suur ndaw soos yi nga xam ne moom la euh, dëkkoo kon daal dañuy wax ne lu borom xam-xam yi juyoo la loo xam ne wax nañ lii ñii wax lii waaye danoo jàpp ne la gën a dëgër de te gën a yenu maanaa de mooy loolu moom tere moo gën a dëppoo ak ruuxu al islam wallahu taala alam jazakum allahu xayran ya cheikhana jazakum allahu xayra kii nee na dafa yore waree wala mu ibbi waree mais dañ ni ko da ngay verser ci banque bi te banque yooyu di banque yoo xam ne day amaale riba mu ni nag ndax euh, kon nu muy def day continuer wala day bàyyi alhamdulilah xam naa Cheikh Abdullah boo ne woon génn kër ci kër yi nga xam ne dañuy transférer xaalis rek doon na doy waaye alakuli xaal ki nga xam ne dafa am liggéey bu mu bëgg a def eh, ñu ne ko faw nga dugal xaalis ci banque day xool dugalu xaalis googee lu muy firi ndax mooy dugal xaalis te seen compte ñoom wala day caution boo xam ne day ubbi compte denc ko fa wala lan moo ko tax a su fekkee caution rek la boo xam ne day ubbi denc ko fa ngir ñu xam ne moom mii am na lii wala yu mel noonu waaye jëfandikoo wut riba ca biir ubbi googe muy ubbi compte wala dugal googe muy dugal xaalis ba su boobaa loola dara du ca nekk su fekkee ne leneen la lu dul loola nag loola mën na koo jural mu tàbbi ci riba te riba moom des koy waxtandiko naam aanakum allah wa baraka allahu fikum kii nee na ku naan sàngara ba màndi fase soxnaam ndax fase boobu dina tàbbi wala du tàbbi alhamdulilah ki nga xam ne dafa naan sàngara fase soxnaam su fekkee ne mandite ma dafa dem ba muur xel ma ba xamatut lu muy wax kooka li ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañu fase moomee du tàbbi waaye nag dafa am lenn ci boroom xam-xam yi ak gëstukat yi ñoo xam ne dañoo wax ne masala mi ginnaaw masalam àtte la ndax kat daa tudd fase li jaadoo ngir ñu xam passé la wala du passé dañ koy yóbbu ci attekat attekat boobee sañ naa xool ban atte la koy jox su gisee ne waa ji dafa jéggi dayo ci lii muy def ci sàngar si boole koog di foyee passé gis ki moom daal ay gis-gis yoo xam ne bëgg na koo yar ba duutu dellu ci loola bu ko neexee mu wéyal passé moomee foofu rek la masala ma di juuyoo ak li nga xam ne moom la boroom xam-xam li wax ci bunt boobu yi ndax lay cosaan si koo xam ne dafay naan sàngara ba amatulum xel yemuy wax yooye duutu doon lu tekki dara ci shariatul islam waaye nag ñële fa ñuy xoole mooy sàngara si bi mu koy naan am xel la yor te moo ko jël naanal ko boppam kon lépp lu ca tegu rek responsabilité la ñu li koy dalil mooy bu fekkoon ne dafa naan sàngara si ba àggal dikk jël aw yafam toj yëfi jàmbur yoon da koy téye bis bu xel ma del see mu fay yëfi jàmbur yooyu mu jëloon kon am na responsabilité kon kay àtte foofu lay sukkandiku bu ko neexee ak ci lor metti bi nga xam ne ñu ngi koy lor doomu aadama ju jigéen jooju ba wéyal passé moomee wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana waffaqakum allah aanakum allah kii Abdul Aziz la tudd sant nangam dëkk ca Touba Mbakke nee na soxnaam su fekkee ni da koy sakku ci kawlal mu bañ nee ndax dina dagan ci moom su xëyee bañ koo jox dépense alhamdulilah jigéen day boroom këram di ko sàkku te fekk amul ngànt te fekk amul ngànt ba noppi mu bañ loola day yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jigéen di koy def malaayika yi dañ koy ko naanee rëbb ba suba mu jaadu nag ci boroom kër bi mu xool lan moo tax muy bañ ndax yi indi yooyu léeg-léeg mën naa doon ay sabab yu bokkut mën naa fekk moom mii dafa sonn wala mu nekk ci situation boo xam ne ku ko yërëm danga ko war a bàyyi tey jii su ko defee boroom kër boobee bañ koo yërëm loolu mën naa indi ak bañ mën naa doon it loo xam ne ci wetu boroom kër gi la loo xam ne mooy dikke anam goo xam ne ku koy dikke mënees na laa foñ maanaam mënees na laa bañ yow ci sa bopp loola it mën naa doon sabab mën naa nekk itam ne ndaw si dafa bëggul woon borom këram bi nga xam ne loola xamoon nañ ko waaye dañ koo ñab-ñabaloon ba dugal ko ci sëy bi looloo tam dana indi sabab soosu moom boroom kër bi na jéem a góorgóorlu xool ba xam lan mooy sababu ngànt yooyu di am suñ xasee xam sabab sax daal di koy mën a yi su ko defee euh, loola daal di dañ sëy ba delluwaat fa nga xam ne foofu la war a nekk waaye nag faje ko nag ne ba dama ko bañ a jox dépense loola moom du saafara ndax boo ko joxul dépense du togg te bu toggul du ngeen lekk ala kulli xaal kon loola moom du saafara wallahu taala aalam waffaqakum allahu cheikhana baarakallahu fiikum kii nee na Euh, dafa am mbokkam moo xam ni soxnaam chrétien la woon nee na nag euh, bi mu faatoo ñuy wax ndax soxna si dina tënji dina ko tënji wala du ko tënji mu ne leen mooy li ci wér ndax chrétien dina tënji jullit wala déet. alhamdulilah ñaari way dencante yi nga xam ne bokkuñu diine kenn ku ne da jëfe sa diine loolu mooy maandug lislaam kenn ku ne da ngay jëfe sa diine. bi ñuy dund ginnaaw nga xam ne ku góor ki lislaam may na ko bu xëyee jëm ca jàkkaam ku jigéen ki xëy jëm ca églisam ñu bokk dajawaat ci seen kër ginnaaw lislaam may na ko loola na xam ne seen lépp noonu la ko tëri ci wàllu diine kenn ku den dangay jëfe sa diine su fekkee ne génn na àdduna dañuy xool ca christianisme ba mu gëm wala bànqaas ba mu ca gëm moom su ca nit faatoo maanaam jigéen ji ca sa borom kër faatu nan ngay def su boobaa lislaam may na ko mu dem def na ay bokkam di def ca su fekkee ne seen jëkkër dafa faatu su boobaa lislaam du ko tere loola kon noonu lay def waaye duñ ko forcé ne ko faaw nga ténji ji goo xam ne ténjug diine yi lislaam la lu ko waral mooy bi nga xamee ne eh, jullit bi da doon ténji lislaam moo continué yor kilifteefam di ko wax ne duñ la may keneen li fee jaaroo fii jaar fii jaar fii kële nag ba jëkkëram faatoo kilifteefam nekkatul ci suufug lislaam ba mu koy maye bay xool kañ la koy maye delluwaat na ca diineem ñoo xool seen charte yañ koy tëral ne ko nangam ak nangam ngay def door mën a sëyiwaat su fekkee sëyiwaat am na ca seen diine wallahu taala alam waffaqakum allah cheikhana wa baraka allahu fikum kii nee na nit kuy tuub naka lañ koy tuubale ndax dañ koy sang wala ñu wat ko wala yu demee noonu wala du ci am mu ni tamit dafa gis ni ñu bëri ñu nuy tuubal dañ leen di tuubal noonu rek après mu dem kenn du yittewoo ci jàngal leen xamal leen diine mu ni loolu tamit euh, lan la ci cheikhna docteur Mouhammad di laay biir jullit ñi alhamdulilah euh, tuubal nit day mu jóge ci la mu nekkoon dikk ci diini lislaam lu rëy rëy la xemmem loo nit sax ba mu nangu ko loolu moo doon liggéeyu yonent yàlla yi ak wootekat yi nga xam ne dañuy woote ci lislaam seen itte mooy nit ña nañ bàyyi caaxaan nañ bàyyi eh, diine wala xeeti jaamu yàlla yu tegul ci aw yoon ñëw ci li nga xam ne noonu la yàlla santaane kon loola mbir la moo xam ne mu réer yi mu am solo la nit ki nag soo xasee bay dugg ci diini lislaam lislaam daa wax ne nit ki buñ ko forcer ci diini ji loolu mooy jéego bi ci jëkk buñ ko ci forcer forse nag du caagi ni mooy nga jekki jekki rek yor ngànnaay ne ko tey nga dugg ci diini ji wala ma rey la waaye léegi léeg nit ñëw ne dafa bëgg a takk jigéen bëgg ko lool ñu ne ko kii da di jullit faaw nga dugg ci lislaam ñu door la ko may mu ne am ah, kay naa daal di dugg ci diini ji lu mel noonu mën naa tax nit ki dugg ci diini ji te fekk dañ ko cee forcé ci kaw bëgg-bëggam dëgg la su su tuubee kenn mënu kenn mënu ne ko tuuboo waaye nañ xam ne luñ gisaat gannaaw bi luñ gisaat gannaaw bi nañ xam ne nii ñu ko ko maye loolu moo ko moo ko waral kon li jaadu mooy nit ki buy dugg ci lislaam na ci dugg ak conviction maanaam na fekk ni lii daf koo doy loolu moo tax jaadu na jataay bi mu toog bala ñu koo wax loo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nañ ko waxal ci lu gàtt ci boppam mooy lan soo xasee wax ashhadu an laa ilaha yi ñu koy wax loo waat yooyu yi lan lay firi ba mu xam ne mooy jaamu yàlla moom dong boo xam ne amul keneen koy jaamooti jeex na boo xasee dugg ci diine lislaam amatul keneen koy jaam mooy yàlla wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy roykaayu muhammad alayhi salaatu wasalaam ci diine lislaam jii moom mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam royukaay ci diine lislaam mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy firi wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na xam ne loola la su loolu jàllee nga xamal ko ne wa lislaam mii gannaaw bu tawxiid jàllee muy wéetal yàlla ak roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa am ay ndigal yum digle yu bari yoo xam ne nag lépp li ko encadré mooy loo loo man rek lañ lay dugal waaye yim digle nag bare na su ko defee da nga cay def la nga ca man tuddal ko yee ca gën a firndewut mooy ponk lislaam yi su ko defee tuddal ko ponk liimaan yi moom it mu ànd ak tawxiid bi juróom benn ponk yi nga xam ne gëm yonent yépp da caa bokk mu doon benn particularisation boo xam ne diini lislaam képp moo ko jagoo su yooyu àggee nga wax ko lislaam yi muy tere xamal ko ne ko sàngara dee su ko naan bokkaale dee su ko def nangam dee su ko def wax ko yi nga xam ne gën a firndewu yi nga xam ne lislaam da koy tere soo noppee na nga ne ko xoolal ndax da ngay continuer ci li nga doon bëgg a def wala da ngay dellu ci kër nga xalaatiwaat ngir mu xam ne kenn forcé ko su ne ah man de wax dëgg li ma dégg doy na ma wala mu ne man sax te noonu laa ko liire woon bi ma daataan ñëw ndax léegi léeg am ñuy tuub ñoo xam ne dañoo jàng lu bari dooru ñëw su ko defee su boobaa nag tuubal ko day daal di jóg ñu bari dañ koy daal di wax na ko demal watu wala demal sangu loolu njuumte féetewoo kaw ndax jamono yi sangu te waxagut ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu kon ma ngay sangu te doonagutub jullit te amul benn xeeti jaamu yàlla woo xam ne day am njariñ dugg ci lislaam jiituwu léeg-léeg waxtu julli day jot wala julli juma sax wala yu mel noonu ñu dañ koy tuubal ñu ne ko demal sangu ji fekk ki naan demal sangu ji li ne ci xalaatam mooy ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan boo koy wax daa war a fekk nga laab waaye fekk yaa def yóbbu de ndax ca gaa yi la muy eh, ci lislaam ndax du ci lislaam mel mi ngi mel ne nga ne ko demal julli ba noppi ñëw door wax su boobaa julli ga du baax ca gaa yi la du baax lépp looy def loo xam ne lu war a mën a indi tuyaab wala du ko indi bu boobaa ndax dugg duggagut ci lislaam te charte bi jëkk ci xeeti jaamu yàlla yi mooy dugg ci lislaam bu mag kon la ngay jëkk a def mooy waxal ko ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu mu wax ko ba àggal nga firil ko ko su ko defee nga ko nag demal sangu ci ñu jàngal ko ni muy sangoo dem sangu soli siram bu watoo loola moo gën ndax li tax ñu sopp ko dañ ne ginnaaw daa yoroon kawar goo xam ne nekkul woon ci lislaam day bëgg kawar gu yees nag goo xam ne daa saxe ci diine lislaam su ko defee mu watu dugg ci lislaam wax la mu wax julli bu dikkee nag nekk jullit bu yees peq boo xam ne su ak njullitam wéree ay bàkkaaram jeex na takk set na wecc nekk na wenn këyit wu weex woo xam ne bindaguñ ci dara nga dénk ko bu baax xamal ko itam loola xamal ko ne ko fii mu nekk nii mbokkum jullit la moo xam ne set na wecc moo xam ne benn bakkaat nekkatul ci moom na góorgóorlu ci li ci kanam ba papier blanche boobu mu yor mu fexe ba benn tomb bu ñuul bañ cee nekkati wala bu ci nekk bu nekk na gaaw far ko far ko nag mooy di tuub wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun naam sa abdallah jazakum allahu xayran cheikhana baraka allahu fikum kii nee na soxnaam dafa foron ceenu or téye nañ ko at laajte ko waaye ba léegi gisuñu boroom mu ni nu ñuy def alhamdulilah lépp loo xam ne dañ ko fortam doon loo xam ne lu am maanaa la loolu war nañ koo yëgle ci mboolem yëglewukaay yi nga xam ne dana tax mu mën a àgg ca boroom moo xam ay rajo la moo xam ay télévision la moo xam sax réseaux sociaux yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci jamono la bépp moyen boo xam ne mënees na koo jëfandikoo ngir yëgle ko rek dana jaadu ñu yëgle ko ci rawatina léegi yëglewukaay yu bare bare bari boo koy def itam doo ca fay daal kon loola euh, mooy la ci jaadu kañ ngay dem ba mu yàgg na nga ne yëgle naa ba wóor na ma ne ne duutuma gis boroom loola duñ ko teg ci waxtu naan nee na ak loolu ñaari at ndax bu yàggoon boroom xam-xam yi dañ daan wax ne yenti at ay loola booba yëgle demewul nii mu deme tey léegi tasaare yomb na lool kon jàpp naa ne diir boo xam ne da nga koo nattale daal ci urf maanaam ci aada daal ba xam ne lii moom jàpp naa ne su doon feeñ ba tey feeñ na kon euh, su diir boobee jàllee man nga arrêté nag mënoo continuer rek nag di di di yëgle ba faw loolu mun mënta nekk su ko defee nag boo noppee ca loola am nga ay tànneef yoo xam ne yoo mën a jëfandikoo la benn bi bu la neexee nga denc ko ba faw di xaar ba xam borom dana mas a feeñam de boole ko dugal foo xam ne danga nga cay bind wane ne lii moomu ma ko dama koo for ndax bu génn àdduna amoon bu nit ñi di xool danañ xam ne lii bokkut saalal ñaar ngir nga mucc ci responsabilité boobu sa jaan mën a wàcc nga seet responsable bi nga xam ne dañ leen a dénk dara fii ci àdduna te ñu mën a sàmm loolee ba keroog borom di ñëw suñ demee ba borom ñëwut it ñu mën a seet nu ñuy def noo xam ne askan wi danañ ko mën a jariñoo loola doon ba ci boroom moo xam ab chef de quartier nga ko jox bu ñu wóolu wala imaam juñ wóolu wala attekat wala képp koo xam ne responsable la boo xam ne dañ koo dénk ndomb ak tànk ci wàllu àdduna te ñu wóolu ko nga xam ne boo ko joxee dana def effort ba borom jot ca bu ca borom jotut itam dana ko dugal foo xam ne askan wépp ay ànd jariñoo ko teyaaba ja dem ca boroom soo gisee ku mel noonu soo ko joxee yow sa jaan wàcc na wallahu taala alam aanakum allah cheikhana jazakum allahu xayran kii nee na dafa bëgg a takk soxna mais nag da koo bëgg a dëkkal fi mu dëkk ci dakaar waaye yaayam ni ko boo ko takkee il faut nga indi ko village yow dellul Dakar liggéey mais moom il faut mu ñëw fii ci kii bi te village bi tamit wax dëgg yàlla nee na gis na na ñuy dunde diine doyu ko soxna si Euh, su fa nekkee mën naa nekk ku tumuranke ci diineem mën naa sax bàyyi lu bare bare bare bari ci lu mu bëgg a def ci moom ci ay jikko ak diine mu ni nu muy def ci diggante bëgg-bëggam boobu ak bëgg-bëggu yaayam boobu alhamdulilah masalam borom soxna soos yi nga xam ne yaayam daa nekk ca village ba moom mu nekk ci taax yi tey takk soxna masala la moo xam ne dafa am ñaari anam yuñ ko mën a xoole genn anam gi moo di ci wàllu sharia di nit ki xas nekk xal la kooku responsable la bopp ci boppam léegi ak ci njabootam su fekkee ne dafa amul njaboot su xasee takk soxna daal day nekk njaboot moom ci boppam lislaam waxut ak kenn ci li jëm ci soxnaam soos yi moom lañuy laaj ab dundam moom la ñuy laaj fu muy dëkk moom la ñuy laaj lu muy sol kon fa muy dëkk moo koy tànnal boppam ba mu dëppoo nam ko bëggee loola nit mën na ko caa jox xalaatam waaye nit mënu ko caa ganak ne ko faawu nga def nangam moo xam ndey la moo xam baay la loolu ma genn wet gi geneen wet gi ci des moo di diggantee nag waajuram mu jigéen kooka def dafa am responsabilité moo di su fekkee ne soxna soosee li tax mu bëgg ndaw si nekk ak moom moo di ci xeetu tumuraanke la soxla ku ko li soxla itam ku ko dimbali ci di ko defal yem mënut moo xam day rooti moo xam kuy taxani la moo xam ku koy toggal la ya soxla te mënu koo defal boppam mu soxla ndaw lu ko koy defal te amu ko su boobaa soxna sa loolee muy laaj waru garam la moom mii su fekkee ne moom rekk la am ci ku ko mën a taxaw nam koy lijjantee nag moo xam ndax soxnaam si la yóbbu foofu mu nekk fa waaye su fekkee ni mu waxee am na gàllankoor ci yóbbu ko soxna sa ndax ay lor yu mu koy dawal su ko neexee mën naa fay nit mu di ko defal loola wala muy jox yaayam lu doy sëkk ne ko jël ci nit janq jànq wala xale wala kuñ la jox wala yu mel moom di ca def say dépense yi ngay soxla nga di ko ci faj loolee su boobaa loolu mooy jaadu ndax société bi lu gën a bari mag ñi nga xam ne dañoo yaroo ci dëkk yooyee bàyyi dëkk yooyee di dem feneen daf leen yombul te kon dañ koy wax ne ko fa nga dëkk bu sa yaay xasee àgg ci tumuraanke gu mel noonu jël ko indi ko fi nga dëkk mu dëkk sa soxna fi nga nekk di ko liggéeyee mu doon lu gën a yomb ci yow waaye nag euh, tam laago la jëlee leen foofa doonut loo xam ne lu yomb la ci jamono yu nekk moo tax léeg-léeg nga fekk leen foofa taxawu leen defal leen la ñu soxla mooy jaatu kon daal la soxna sa di soxlawoo moom war na caa taxaw léeg-léeg it mu déplacé dem seeti yaayam dalal xelam waxtaan ak moom su ma nee ànd ak soxnaam dem loola lu baax la su fekkee àndut ak soxnaam it moom mu dem wallahu taala alam jazakum allahu xayran cheikhana jazakum na boroom këram ñoom ñaar am na benn doom bu góor mais na boroom këram du julli wala ku sàggan la ci julli mu ni taxawaay la ci war am alhamdulilah boroom këram boobu dul julli wala mu sàggan ci julli na ko laaye biir te continuer sax ca laaye bi di ko soññ ci julli nay def saa bu waxtu julli jotee te julli war ko mu daal di jàpp julli fàttali ko ko daal di taxawal julli na sax ca loola rek ndax kat gépp góor goo xam ne aw yiw nekk na ci sab xol wala sunu borom tabaraka wa taala nam na ci yow aw yiw war ngaa rus toog ak sa soxna guddi ak bëccëg saa bu waxtu julli jotee mu jàpp fàttali la julli nga daal di jóg taxaw julli yow nga nekk ci safaanug loola lii daal defe naa ni mooy yoon woo xam bu ko defee moom allah kulli xaal moom soxna si jaanam moom dana wàcc wallahu aalam waffaqakum allahu cheikhana wa baraka allahu fiikum kii nee na dafa am soxla bu jàmp lool ci oto te yorul xaalis bu mu ko jëndee mu ni ndax dina mën a leb banque pour jënd ko. alhamdulilah bu fekkee na day dem ci banque bi def finance islamique day nga xam ne ñoom dañuy jënd oto ba ba noppi wëlbati ko lebal ko ko su boobaa mën naa am oto te fekk lekkul riba joxewul riba ñu di ko lekk waaye su fekkee daa ñëw ci banque boo xam ne da ko lebub xaalis mu ñëw jox ko xaalis nekk ñetti million yi waaye boo koy fay da nga ciy teg nangam pour cent. su boobaa na xam mi ngi joxe riba ñu di ko lekk te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na borom bi koy lekk riba ak ka koy joxe ñu di ko lekk wallahu taala alam jazakum allahu xayran cheikhana barakallahu fikum laaj bi moom laaj bi yéeme la soxna si nee na moom dafa am na borom këram mais nee na am na doom joo xam ni leer na ko ni boroom këram juru ko ndax am na maam kum seqaloon dara fekk na boobu moom mi ngi ci buumu sëy mu ni doom jooju ndax dina dond boroom këram bi parce que nee kenn xamu ko moom dong ko xam euh, ginnaaw ginnaaw yàlla xanaa euh, kam ko seqal kam ko seqal sax man naa ba nga xam ni ndax moo ko jur ndax boobu mi ngi borom këram mu ni ndax doomam jooju dina doon wala déet alhamdulilah jigéen joo xam ne mu ngi sëy day nekk ci biir këram loolu la sharia di tudde alfirash jëpp doom joo xam ne juddu na ci biir néegub sëy fekk ndaw saa ngi ci kër borom këram borom këram di sëy ak moom lu fa juddu lu nekk boroom këram lañ la ko sharia askane borom këram la ko chariatul bi di askanale doom jooju kenn mënu koo dàq ci baayam lu dul su fekkee ne atte dafa am atte boobu nag mën naa amee ci ay nit tuumaal ndaw si ne dafa njaaloo maanaam su doon borom këram moo ko tuumaal ne moom mii dafa njaaloo am naa ci ay firnde indi ñeenti nit ñu seede kenn ku nekk ne maa ko gis ak sama bët mu ne njaaloo googee moo jur doom ji man juruma ko su boobaa sharia day dàq doom ja wala amut seede yi ak attekat ba woo leen moog ndaw si ndaw si ne moo ko jur mu ne juruma ko ñu waat ci kanam jullit yi suñ waatee ba jeexal ndaw si waat ne moo ko jur kële waat ne juruma ko suñ noppee ndaw sa dañ koy bàyyi ak doomam mu dem waaja du doon baayam noonu la ko sharia bi àtte wala ndaw si jógoon moom dem ci àttekat wax ne doom ji waa ji juru ko waa ji ñëw ñu woo ko laaj ko ndax yaa ko jur wala juróo ko su nangoo yi juruma ko su boobaa dàq nañ ko mu dem waaye kat bu ca xëccoo amee ba tey ndaw si wax jëm wax ne juru ko mooy lu mel ne laaj bii waxi keseem moom du doy ndax ginnaaw mi ngi doon ànd ak jëkkëram di ànd akub jaambur ci wàllu njaaloo xamut ku ci jur doom ñaareel ba su xasee saxal ne moom ab njaalookat la ay waxam ci boppam itam duutu dëgër ndax dafa am bàkkaar yoo xam ne ku koy def moo fen ñooy ànd kon loolu moo tax doom joojee day des di doon doomi jëkkëri ndaw si ci shariatul islam ba keroo ab atte di génn boo xam ne dañoo jugé wax ne doom jii kat juru ko bu boobaa ab attekat a koy def boo xam ne ku xam sharia lay doon mën naa nekk qaadi mën naa nekk ab imam mën naa nekk ab centre islamique boo xam ne dañoo am département fiq boo xam ne dañuy atte loola lépp mën na caa am su fekkee atte nañ ko ba ne kii moom juru ko su boobaa doom bi waaye ci kaw xam na moom ab xam-xamam lam xam rek mooy njaaloo na waaye xamut ko jur ko moom wallahu taala alam waffaqakum allahu cheikhana lima fihi alxayr wasalaah kii nee na lan moo tax sharia tëral ni doomu njaalo du dond fan la ko euh, xam naa laaj yi teg ne doomi njaaloo du du doon tey euh, laaj yi mu xaw am na ku ko teg doonte sax yoo xamoo ko itam doomi njaaloo mooy doom joo xam ne dafa juddu ci sharia shariatul islam dafa xotti aw yoon ne yoon wi ku ci jaar def leen defal leen ko nii ak nii ak nii ku jaarul ci yoon wa nag loola saaw yoon nekku si maanaam ki nga xam ne dafa judduwut ci sharia kooka euh, digganteem ak kañ koy askanel naan kooka mooy baayam loola sharia da ko reconnaître ut nanguwul ne kii mooy baayam loolee nag moo tax du doon ndax ñooy doonante day fekk sabab yi tax ay nit di doonante dox fa moom li mu jàpp ne sabab su fa dox la mooy wàllu askan te wàllu askan woowee muy wax sharia da ko nanguwul kon loolu rek la saa boo xamoon ne jaar na ci yoon woo xam ne wu sharia xam la doon wu mu rëdd bu ci juddoo sharia mën naa nangu woo waaye lu dul loola doonante ga mënu caa am wallahu taala alam jazakum allahu xayran wa baraka allahu fiikum wa aanakum wa kassara amsaalakum wa adxalakum aljannata bigayri xisaabin wala cadaab amin ya rabbal alamin jazakum allahu xayran cheikhana tonti leer na ñoo ko déggandoo ñun ñëpp mbokk yi kon euh, foofu rekk la ñuy yemale fatawa bi tey di leen jox dox daje ba beneen ay bis wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu